ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi ñoom ñëpp xanaa rek ndegam mm, sàkku nga ko wax nga wax nga nu ñu sànni ci ay kàddu loolu moom dañ koy jàppe ndigal defe ko noonu ndax euh, murit moom ndigal rek te dégg nañu sëriñ Mountakha bi muy woote li mu wax jëme ci yow lu mu wax rek maa ko wax yóbbaale na lépp kon suñu dee wut ngërëmu sëriñ bi di ko jaare ci sëriñ Muntaxa te nga nekk ci diggante bi kon loole day daal di nekk lu ñuy bége te ñaan yàlla sunu boroom liggéey bi mu yokkule ci ay ndam ndam yi nga xam ne buñ ko seetee dañuy gis ne sëriñ tuuba mm, kenn xamut lu mu doon bi nu Cheikh Saalix dëddoo cheikh mouhamadul amin baara ibnu cheikh mouhamadul fadil sos lii teg ko ci sa loxo mu mel ne cheikh mouhamadul amin baara bi nga xam ne moo njëkk a doon xalifa sëriñ Touba ci ay sëtam dafay wane ne liggéeyu sëriñ tuubaa du taxaw mukk kenn mënu ko taxa taxaw ku defe ne boo téyee sa loxo mu taxaw seebo nga téye sa loxo xool ba xam koo xam ne boo téyee sa kàddu mu defe nga ne mu taxaw téyel sa kàddu koo xam ne boo téyee sa alal defe nga ne boo ko téyee yoonu sëriñ bi taxaw téyel sa alal waaye dara munta téye doxinu yoonu sëriñ bi ndax loolu bi ko a Cheikh Mouhamadul Amin Baara di sos ginnaaw a Cheikh Saalih delloo si waat na pas-pas ak ngëm-ngëm ci ne mbirum sëriñ Touba kanam rek lay jëm loolu kon buñ ko dee dox ba nëgë ni ànd kook yow te ci njëlbeen gi dama la daan faral di wax ne la say boo rek ngay santaane lu ñu man ndax ñu bari rus nañ la loolu nag ba tey tey lañ ko gën a wax di sàkku nga jotal na sëriñ Muntaxa suñuy cant ak suñuy ngërëm ndax yaa dox suñu digganteeg moom liggéey bi it fañ ci daan taxawee rek noonu rek lañ ci taxawee di ñaan yàlla suñu borom mu sàmm la aar la ci lépp loo xam ne luy gàllankoore la ngërëmul Serigne Touba li nga xam ne itam moom nga ci wut ak ko ko àndal ku ne ndax ñun man ñun xam nañ ci loo xam ne duñ ko wax ci rajo bi waaye loolu sunu borom moom mi nga xam ne moo mën a mayee yal na la ci jàppale bu baax a baax Serigne Mountakha mi nga xam ne moo nekk sunu kanam te képp ku mos a nekk ci kanamam kaddu yi mu wax léegi nga ne boo fàttalikoo Cheikh Mouhamadul Amin Baara Serigne Mountakha na mu defoon ci wetam ñu bari di ko jeeneer bu ma waxee loolu ba muy siyaarati ci moom di nga xam ne kon jataayu tayam bii. lépp lu waaye def ci wetam dafay mel ne dañ koy delloo njukkal yal na ko yàlla may kàttan ak wér tawfiix boobu muy faral di jëfandikoo ci loolu naan tawfiixi sëriñ bi yàlla na ko defal ci li muy faral di wax naan liggéey bi ñaari baat yooyu da koy jëfandikoo lu bari tawfiix ji ak liggéey bi yàlla na ko ci yàlla yàlla defal waaye nag euh, bu ñu xoolee bu baax dañuy gis ne lépp loo xam ne wax nañu ko fi di rafet rafetlu bu baax ministre bi ni nga xam ne ni la doxalee liggéey bi ndax doxin wi tegu na ci yoon woo xam ne benn lënt du ci am kon loolu sant nañ ko ci bu baax waaye bu ko xoolee dëgg-dëgg dañuy gis ne euh, yaari mbir bari na ci mooy ndox mi ñuy naan ak ndox mi nga xam ne dañoo bëgg a tàggalikoo moom ndox mi nga xam ne moom lañuy naan gis naa ci dégg naa ci ñaari yëf yoo xam ne mën naa dalal xel benn bi mooy di jëlee ji ndox feneen fu bokkul ak dëkk bi di ko doll ci li dëkk bi am loolu mën na koo tax a sakkan beneen ba mooy settandoo yëpp nga duyandoo leen ba ñu fees ñoom ñëpp nga ubbeendoo leen mën naa am sax tiwo yu toj boo moyuwul ndax tiwo yi loolu lay settandoo yi loolu lay jëriñ ñaari anam yooyu gis naa ci ne e, sunu borom mën nañoo dimbali ba mu wuute ak la nga xam ne mooy mooy la daan am ci ak manquité yàlla nag moom mooy sottal ab jaam moom day tàmbali bàyyi yàlla moom mu àggale waaye daal bu dee ci wàllu boobu xel dal na ci nun ñi nga xam ne noo ko noo koy jariñoo nekk ci wetu ci ci wetu sëriñ bi ci dëkk bi la sëriñ tubaa waxoon ca ñu dëkk madina nun ñi war nañ koo wax sëriñ tubaa dafa wax ni yéen waa madina na ngeen sant seen boroom ndax yéen a ngi dëkkaaleeg yonante bi sallallahu alayhi wa kon loolee mu waxoon nu nu itam war nañ koo mën a delloo loolu dafa waxoon ne leen yéen a ngi dëkk ak yonante bi yéen a ngi ci wetam kon war ngeen a sant yàlla kon war na nañu sant yàlla ci li ñu dëkkee ak sëriñ bi jafe-jafe yépp lu mu bari bari ñu xam ne fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra li wér te wér moom mooy euh, Sëriñ Tuubaa sunu borom may na ku la xam ne jafe-jafe yépp dana dana fi jóge lii nga xam ne moom la ñuy wax loolu moog dundu doomu aadama na waaye nag dañuy jàpp ne kenn ku nekk ci noonu day def dafa war a jàpp ne yow boo defaree mu defaru boo yàqee mu yàqu ku nekk day war a defe ne boo defaree mu defaru boo yàqoo mu yàqu su boobaa rek lépp dana baax yaakaar nañ ne incha allah euh, yàlla danañu dimbali ba nga xam ne lépp loo xam ne ni la ko sëriñ bi bëggee teg ko ci sa loxo ñu ànd ko ak uh, bokk yëpp uh, majlis suura bi comité bi sëñ uh, sëñ sëñ Ousmane coordinateur lépp di ànd ak yow ci liggéey jàpp naa ne te Serigne Touba rek lal ko njabootuk Serigne Touba gi nekk ci bokki sëriñ Touba yi seen njaboot yëpp nekk ci seex yi yëpp nekk ci yaakaar naa ne loolu faw yàlla dana ruus waxtu wu nekk ndam li di yokku te yaakaar naa ne loolu incha allah buñ ci gënee. Eh, dox ba ci kanam danañ xam ne lii ñu wax mbirum sëriñ bi moom kanam rek lay jëm waaye du jëm ginnaaw kon yàq xel dal na bu baax a baax te màggal gi ñu dugg ci ak jàmm te génn ci ak jàmm loolu bu ñu ko waxee bokk na ci la tax ñu di ko wax mooy jàngoro ji nga xam ne mi ngi ci dëkk bi nekk ci réew mi nekk ci adduna bi boobu yëpp ñu ñaan sëriñ bi mu génn ci dëkk bi génn ci réew mi génn ci adduna bi yëpp lépp lu muy gàllankoor lu nekk sunu borom tegg ko ñaan yàlla ñu fekk ko ay at yu baree bari di la dollee sant di dollee gërëm di sant bokk yëpp ci turu bokk yi ñoom ñoo xam ne ñoom lañu bokk teewal ñun ñëpp di gën a rafetlu ministre bi jataayam bi nga xam ne moom la jiitee réunion bi tax nag ku yàgg a rek dina am loo xam ne danga nga ko xam te doo ko wax waaye rafetlu dañ ko bu baax a baax sëriñ bi ñoo ngi sant ko gërëm